alhamdulilah rabil aalamiin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu boroom tabaraka wa taala ci lu nëbbu ak ci lu feeñ su loolu jàllee ñu xam ne jaadu na ci bépp jullit muy góor walla jigéen mu xam ne ñaari seede yi muy seede ne yàlla benn buur la boo xam moom rekk moo yeyoo ñi di ko jaamu bi ci des di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ndawam li mu yónni ci xeet wi mujj ci xeet yi mu doon ko mujj ci yonent yi ba keroo àddunay tukki ñaari seede yooyu ñi xam ne mooy cosaanul lislaam mooy fondement ba ñaari seede yooyu ka ci lislaam moom lay wax ngir dugg ci diine ji su boobaa ñu jàppe ko jullit mu am àq yi jullit yi am droit yi lislaam di mu am droit yi jullit yi di am ñi teg ko itam devoir yi nga xam ne moom la lislaam di tege ñaareelu seede bi nag muy seede bi jëm ci yonent bi xutba bi ci la jëm la muy firi moo di ne amul kenn koo xam ne ku ñuy topp la topp goo xam ne diisu ko laaj lii foo ko jële ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te topp googu diisu ko bokkaale ak keneen koo xam ne danga naan am na jeneen doomi aadama yoo xam ne lu mu indi duñ ko laaj foo ko jële kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko jagoo ci topp bépp boroom xam-xam wala nit ku baax wala wàlliyu moo xam tur wuñ ko mën a jox ci àdduna su ko nit ñi dee topp dañ koy topp ci kaw ne daa topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye su jàddee yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañ koy won gannaaw topp yonent bi lii mooy li war a am topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak seede ne sag seede mën a wér maanaam sa genn wàllug lislaam mën a wér muy shahadatu anna muhammadan rasulullahi sàkku ci yow ñeenti mbir bu ci manqué rek sa seede boobu du mat ba ca jëkk mooy tasdiquhu fi ma amar fi ma axbar tasdiquhu fi ma axbar mooy lépp lum la xabaar nga gëm ko lépp lum ne dana ñëw wala ñëwoon na wala mu ne la lii ci saa borom la jóge nga gëm loola loolu nag la muy firi dëgg-dëgg mooy gëm ne moom mooy yonentu bi yàlla kon gëm ne it mooy yonentu bi yàlla bi mujj ci yonent yi nga xam ne beneen yonent du ñëw gannaawam wax yu duutu wàcc jóge ci sunu borom tabaraka wa di ñëw ci doomi aadama gannaawam moo xam wax yu muy wax ak moom la direct wala wax yu wu muy yebal malaaka woowu wax yu dagg na loolu moo tax ci buxaari ak muslim ci seen ñaari téere yu màgg yooyu ñu nett li jële ci anas ibnu malik àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne benn bis abu bakar dafa ñëw ci omar gannaaw bi nga xamee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àdduna abu bakar ne omar kaay nu dem fa ummu ayman ziyaare ji ko comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam daan ziyaare jee ay man as soxna su mag la su gudd fan la ndax moo nekk xaadinatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moo ko yaroon bi mu nekkee gone gu tuuti yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa aada woo woon su toogee ba mu yàgg mu dem fekki ko këram seeti ko ngir sàmm orma jooju Abu Bakar ak Omar ñu àndandoo ñëw fa soxna sa biñ agsee nuyoog moom mu gis leen daal leen di fay daldi jooy jooy yu metti ah bi mu jooyee ñu laaj ko ne ko waaw lu lay jooyloo yow ay man xanaa xamoo ne yàlla lam dencal ab yonentam moo gën ci moom àdduna ak li ci biiram mu ne leen jooyuma dey ngir réere loolu waaye damay jooy ngir xam gi ma xam ne wax yu daan wàccee ci asamaan di ñëw ci suuf dagg na bi mu waxee loolu nag ñoom itam ñu daal di jooy jooy yu métte métti kon saxaaba yi seenug dégg mooy xamoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw xas na génn àdduna kon borom bi tabaraka wa dagg na lii booxante ba fa nekkoon ca diggante ba waxatul ak kenn yëbatul yëbalatul malaayika it muy wax ak kenn wala muy yebal ab yonent beneenati ndax yonent ba dem na te mooy ko ca mujj dadi nag pexe seytaane ak iblis jax-jaxal nañ xeli ay doom aadama ba booy déglu ni ñuy waxe ci jamono yi rawatina boo dee déglu ci rajo yi di déglu ci television yi ak la ko nuru day mel ne borom bi tabaraka wa taala ba léegi mi ngi wax ak nit ñi day mel ne malaaka yaa ngi wàcc ci doomu aadama yi day mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi fi di wax ak nit ñi ma ne loolu pexem iblis la mu muy jaxasee xolit doomu aadama yi ak di leen yàqal waaye li wér moo di borom bi tabaraka wa taala waxatul ak kenn lu bare bari da dégg kuy waxtaan ci biir xadiisam wala waxtaanam yàlla ne ko mu ne ko nangam yonent bi ne ko mu ne ko nangam lu dagg la lu jeex la jullit yi war nañ koo génn itam ci seeni pas-pas ngir seen gëm giñ gëm li leen yonent bi mu andil xabaar leen ko mu mën a doon dëgg ci ñoom ñaareelu mbir mi nga xam ne sa seede ne yonent bi mooy yonent bi dana mën a wér mooy topp ko nag ci lépp lum santaane topp ko ci lépp lum santaane borom bi tabaraka wa taala nee na ku topp yonent bi topp nga yàlla nee na it topp leen yonent bi ndax ngeen mën a am yërmaande neena na itam yéen nit ñi gëm yàlla topp leen ab yonentam topp leen yàlla te topp ab yonentam te topp seeni njiit seen njiit yi nga xam ne dañoo topp yàlla ak yonent su fekkee xëccoo ngeen ci dara wala ngeen jooyoo ci delloo leen ko ci yàlla akub yonentam loolu ñetti aaya la yoo xam ne benn bu ci nekk aw lay la wu dëgër wuy wone ne topp yàlla mooy topp yonent bi loolu moo tax boroom xam-xam yépp ñi dëppoo ne lépp lu jullit yi juuyoo fekk yonent baa ngi dund dañ ko war a delloosi ci moom mu àtte leen ca lépp lu jullit yi juuyoo fekk yonent bi génn na àdduna dañ ko war a delloo ci sunnaam sunna àtte leen ca loola loolu mooy wéral ngëm googu iblis nag buy jaxasal nit ñi nam leen di def mooy won leen ne yéen ñu bëgg yonent bi rek ngeen su ko defee foo toll guddeeg bëccëg ngay wax ne bëgg naa ko nu waxiin wala neex nga waxe ko firiin wala neex nga firee na mbëggiinu bëggiin woowu waaye fekk bëggeelug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam niñ koy firee te sharia nangu ko mooy topp ndigalam mooy topp ndigalam waaye kenn du wax ne bëgg naa yonente bi alayhi salaatu ba noppi di juuyoo ak li nga xam ne loolu mooy moom la santaane ndax soo ko defee rek yaa ngi weddi ci sa jëf li nga xam ne moom nga wax ci sa làmmiñ ñetteelu mbir mi mat bàyyi xel ci shahaadatu anna muhammadan rasulullah moo di ijtinaabu ma naha anhu wa zajar mooy lépp lum tere nga bàyyi ko bee mooy lum digle nga def bii mooy lum tere nga bàyyi borom bi tabaraka wa taala neen lu leen yonent bi indil jël leen lum leen tere itam bàyyi leen kon mu leer naññ borom bi ne nañu na wattandiku ñi nga xam ne dañuy jooyoo ak ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ wattandiku fitna dal ci seen kaw wala musiba mu mag al imaam ahmad ñu laaj ko waaw fitna jooju fitna yi lu mu war a doon mu ne leen mooy kufur maanaam fitna yi génn diine la maanaam wattandiku leen su ngeen jooyoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ndigalam ngeen tàbbi ci kéefar ngeen tàbbi ci kéefar wala yaasu billah kon mbokki jullit yi ñu xam ne du dagan ci jullit bu góor wala bu jigéen nde ak tere ñëw bu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw di xëtt tere googu di ko def ak lay wu mën a joxe ci àdduna moo tax borom bi ne daganut ci jullit bu góor ak bu jigéen wa maa kaana li muminin wala li mumina jullit bu góor wala bu jigéen ida qada allahu wa rasuluhu amran su yàllaa ko yonentam santaane mbir an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim ñuy tànn lu leen ca neex ginnaaw yàlla santaane na sañatuñoo tànn ginnaaw yonent bi santaane na sañatuñoo tànn lañ sañ kay mooy def rek la mu santaane bàyyi la mu tere lenn ci ñi nga xam ne iblis dafa jaxase seenum xel ba tey ci lu aju ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàq seeni xol dañuy ñëw fekk loo xam ne yonent bi daf koo tere ñu woyefal ko jàpp ne loolu lu seet lu woyef rekk la xëy na sunna la wala tur wuñ ko mën a jox ci àdduna ngir woyefal ko bañ koo def moo xam dafa doon loo xam ne ci seeni jaamu yàlla la aju wala dafa aju sax seen comportement sa col yi nag sa melokaan ak li aju ci yow fekk loo xam ne dañ koo tere mu di ko def ndax xeeb ko ak it di sukkandiku ci ay lay yoo xam ne lay yu feebal la yu ñàkk solo léeg-léeg da gis ku def lu mel noonu muy moy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk xeeb ko moo tax soo ko laayee biir lim lay tontu mooy xol rekk moo am solo li nekk ci xol bi rek moo takku léeg-léeg sax nga dégg ku la ca dollil ne la ah bari aane jullit booy dajeel mu mel nii sol lu mel nii yor lu mel nii te téewut boo jëflantee moom mën na laa wor wala mu def la nangam ak nangam wala mu ne la bari na kat jigéen joo xam ne day muuru muraay goo xam ne bu jot la waaye boo jëflantee moom ci wàllu jikko dangay fekk ne jikko yi nekkul jikko yi lislaam lay yu mel noonu lay teg ci sa loxo waaye fekk ndegete loolu ak réer la ak réer la ci kaw ne su fekkee ne biir xeetu lislaam ñu mel noonu ngi ci nga xam ne seen bitti day doon bittib lislaam seen biir juuyoo ak lislaam loolu su amee ci biir xeet weet yow du tax mu dagan ci yow ngay def liñ la tere du tax muy dagan ngay def luñ la tere yow kon bàyyi leen ak loola soo leen mënee laay biir ñu soppi ku baax na soo ko mënul yow nga def liñ la digal bàyyi liñ la tere waaye doo kat biir xeet wi am na ci ñoo xam ne dañoo mel nii kon bàyyi ma man itam ma mel ne ñoom kooku musiba bala beneen bi ci des mooy war ngaa am xam-xam ci ne yow kenn du la laaj jëfi nit ñi ëllëg say jëf lañ lay laaj yow kon lañu tere bul ci wut looy xeeb ak looy réyal bu ne lii sunna la bu ne lii dafa woyof ginnaaw yonent bee ko tere te borom bi nee na wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen tere bàyyi leen kon bàyyil loola donte àdduna ak li ci biiram nag ànd nañ di ko def yow na nga ko ba lim santaane nga di ko def donte àdduna ak ci biiram bàyyi nañ ko yow jëfeel loola loolu mooy diine loolu la su loolu ci la sa shahaada ne yonent bi mooy yonent bi yàlla ci lay mën a wéree lu dul loolu nag wax lay doon ci làmmiñ waaye boo duggee ci biir jëf yi fekk fa leneen ñenteelu taxawaay bi ci seede googu moo di borom bi tabaraka wa taala diisu ko jaamu lu dul ci sharia bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaamu yàlla du jóge fenn fu dul ci diine ji yonent bi alayhi salaatu wa salaam andi diisu ko jaamoo bànneexu bakkan diisu ko jaamoo ay aadaaki cosaan diisu ko jaamoo ay biddaa masalam moomu nag ngir mu leer ci yow faw nga dégg ñaari tomb benn ba mooy jullit bu nekk war naa laaj boppam diine fan lees koy jële diine lii may jël di ko jaamoo yàlla fu mu war a jóge foofu ci alxuraan ak sunna rek la mën a jóge wala lu aju ci alxuraan ak sunna li ñu tudde qiyaas mën nañ ko wax ne ci biir alxuraan ak sunna ci la jóge su fekkee qiyaas bu wér la waaye diine du jóge ci ay xalaat yoo xam ne ay doomu aadama ñooy toog rek xalaat seen xalaat bopp ne nañ ko tëre nii déedéet diine du jóge ci ay gént yoo xam ne doomu aadama moo gént biig rek ñu ne ko defal nangam mu xëy ne doomu aadama yi def leen ko déedéet diine du jóge ci njort diine du jóge ci aada ak cosaan diine du jóge ci kaw ne lii laa fekkoon samay baay ak samay maam nekk ci kon baax na déedéet diine ci alxuraan lépp loo xam ne dafa juuyoo alxuraan ak sunna doonte baay ya ak maam yooyu ñoo ca nekkoon dees leen di ñaanalu njéggal te ñu teg ko fële te topp alxuraan ak sunna loolu faaw nit ki am fiq ci loolu beneen bi mooy xam ne sharia bi li tax beneen mënatu walaabal mooy dafa mat moo tax borom bi tabaraka wa ci at mi yonent bi génnee àdduna walla ca mujjug at ma ndax ca mujjug at ma ci la aaya bi wàcce muy ba ñuy aj ca arafa kon ci weeru zul xijja la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ci weeru rabiul awal kon diggante aaya boobu fi mu wàccee yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundaat na ñaari weer ak dara wala ñetti weer su fekkee mat na ko fa la ko borom bi wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum tey jii laa matal seen diine wa atmamtu alaykum ni'mati ma mottali samay xéewal wa raditu lakum al diina lislaam jii nekk ci seeni loxo tey mooy ji ma bëgg mooy ji ma gërëm loo kon loola doon lu leer nañ ñi diine nag su fekkee ne mat na li muy firi mooy la wàccoon ci yonent bi mu yoroon ko di ko jaamoo mook saxaaba yi ñi doon ko jot li ba agsi fii àgg fépp fu lislaam àgg loolee mooy diine diisu ca wàññi diisu ca yokk luñ ca yokk nag ak lu ko xel yi rafet rafetlu rafetlu ak lu ñu jàpp-jàpp ne jaadu na ñu xam ne loolu bokkul ci diine ji diisu ci jële mukk ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala meram lañ cay jële ndax kat lépp loo xam ne dolli nañ ko ci diine ji tudde ko ak jaamu yàlla di ko wute tuyaaba te yonent bi ak i saxaabaam suñ delsi woon dañuy laaj ne lii ngeen di def yéen lu mu doon nan xam ne loola biddaa la tudd bi nag lañ cay jële mooy bàkkaar waaye diisu ci jële tuyaaba li ko waral mooy ki sos bidaa ci diine ak ki koy jëfe ñaari mbir a ko séq ba ci jëkk mooy jàpp ne yonent tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñàkk xam xam waliyaasu billah ndax kat su fekkee nangu nga ne jaamu yàlla gi yonent bi defu ko woon moo ki saxaabaam ba noppi yow jaamu yàlla googu yaa ngi koy def kon da ne kon ñoom xamuñu ko wala su fekkee danga ne xam nañ ko kon danga leen a tuumaal ne kon dañoo nëbb diine te yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala ab yonent bu mu mën a doon sax bokk na ci yi gën a garaaw ci digganteem ak boroomam mooy mu wàcce ci moom diine ba noppi mu nëbb ko kon yonent yi réeruñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réerut lépp lu yàlla wàcce woon ci moom xam na ko jottali na ko nëbbul dara itam kon jottali na lépp kon mënuñoo dem ba mujjug jamono ay mbir di feeñ yoo xam ne dañ koo tudde ay jaamu yàlla yoo xam ne yonent bi ak saxaabaam jaamu wuñ ko yàlla loolu biddaa la te diisu ci jële tuyaaba waaye bakkaar lañ ciy jële loolu jaadu na ci bépp jullit mu xam ko ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ñu wàcce woon ci moom aaya boobu ngir ñu xam ne nëbbul dara dañu wax ne téeméeri junni saxaaba ñoo teewe xajatul wadaa cent mille personnes ak jullit nga xam ne daanaka jullit yi mën nga ne at mooma ku amul ngànt rek da ngaa dem aji comme ni ko jaabir ibnu abdullah nettalee biñ yégee ne yonente bi alayhi salaatu salaam dafa waaj ren fas yéene aji jullit yi képp ku amul ngànt rek at moomu dangaa ngaa dem aji ku fa des ku ne rek ak foo mën a nekk ci àdduna ngant moo la tey waaye kon da ngay aj ànd ak yonente bi alayhi salaatu salaam ndax genn aj googu képp la aj ci dundam te aj ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu màgg kon loolu moo mbooloo mu bari ma fa teew moo tax ba ñu teewee ñu wax ne mat nañ meetu alfi nafs cent mille personnes ba mu defee xutbaam bu mag ba ca arafaat ba àggal nga xam ne daanaka lépp lu ne ci diine rek wax na ko ci daf ne ala hal ballaxtu ndax jottali naa saxaaba yépp ña fa teew ñi àndandoo ñépp ne ko jottali nga mu ne leen kon ñi ko fekkee nañ ko jottali ña ko fekkiwut daa di ne allahuma ashhad yàlla yow sa boroom seedeel ne kon jottali naa li nga xam ne moom nga wàcce woon ci man kon aj googu mooy xajjatul wadaa mooy aj gi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la tàggoo xeet wi téewewaatul meneen ndaje mu mel noonu beneen occasion boo xam ne mën na ci jàkkarloo ak jullit yi wax ceeg ñoom wax jooju kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam nëbbul ak jaamu yàlla seytaane nag moo bari doole moo mën a dem ba mujjug jamono ab jaamukatu yàlla wala nit ku baax wala dara su fekkee fi xammatut seytaane mën na koo feeñe ne ko jëlal lii ci yonent bi laa ko jële wala seytaane ñëw sax ne ko maay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlal lii ma jox la ko mu gëm ko jël ko boole ko ci jaamu yàlla yi loolu ñu gëm ne pexey seytaane rajim la summa alamu an allaha amarakum bisalaati wassalaam ala rasulihi almustafa fa qaala jalla wa ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man salla alayya salaatan waaxida sallallahu alayhi biha ashra allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad warda allahuma an xulafaa'ihi raashidin al a'immati al mahdiyin wa an saa'iri saxaabati ajmaciin wa an ittaabiciina wa taabici ittaabiciina wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin wa anna macahum bimannika wa karamika yaa akramal akramiin allahuma arzuqna xubbaka wa xubba nabiyik wa xubba man yuxibuka wa yuxibu sunnatah wa xubba kulli camalin yuqarribuhu yuqarribuna ila xubbika wa xubbihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa aqim alsalaa